Навек! السيلان بدأت بسم الله الرحمن أحمدنا المدى تفدى لغير نبي أبدا والخلل حقا سلام ربنا المقدم على الرسول والنبي المقدم إن من عبد الله خلق الخلق جميع درجة وخلقا بسم فاسلم ربنا الراسية والأبد هدى أبي القاسم الأول سطور تنوير مؤمن سموز والفتور يلقى بالمقدار من قال الكرام له بقدم قبل قدم المرام رفض كتاب هو جميع الكتب ومثله فيما مدى لم يبدأ به من زل أنه والدم سواه يغسل هوى سفاقة التي أنا عجز هواه في اليوم الذي وعد وجز محمد صلى عليه الله أفضل ما خلقه مولاه نور النبي زعزع السلام من لم يعبد فكرت ربي بنصر ونزام ما نبي ولي ميقات النزام نفو رسول الله زينة المدر لبال إلا لقدر وخدر قال لي المختار ما لخدر من ربي ربي فانغالى عبادتي لمن مع الفتونا في المنتقى المتونا رسولنا أحمد خلقنا بربي كل فسرى للغاية sheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokk yi ñu bàyyi xel ci alxadimiya asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jëmm ji ngeen jàkkaarloo nag mooy sëriñ Cheikh Fall Mbor mu sëriñ Aliou Fall Mbor sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ok ñu ngi la fekk fii ci kër sëriñ Abdoul Khadir Mbacke nga ñëwoon ci bis bi nga xam ne dañ koy fàttaliku tey fii ci kër sëriñ Abdoul ñu bëggoon a xam sa diggante ak njabootu sëriñ Abdoul Khadir Mbacke sëriñ Abdoul Khadir moom yàlla daa def doomi sëriñ Touba di ko yor jikkoom yoru meloom dëppook sëñ bi ci lépp ba noppi nag doonaan xarit sama waajur sëñ Aliou ndax mujjan na di ko may weer wu ne mu ñëw ca kër ga te ko daan def par ñetti weer mujj sëñ bi ne ko dama lay namaat ci diggante bi mu far di ko def par weer wu ne dana ñëw yendu na ca kër ga dana fa ñëw yendu fa alxamis ba jant so boobu ay furweeg yooyu amul tubaat ndakaaru lañ koy jënd ci ka jënd day dem di bu ko dajalee bu ñu ne suba la mu a ñëw indi ko bi ñëpp daan ñëw ci ngan waaw te it yàlla def na seenu jaxasoo yàgg lool te moom it daa am maayu boppam ndax suñ suñ borom suñ suñ mag bi xam le ne ba mu ganee àddina dane maam Ceerno kook yi ngay tuddi li bi ngay dem ba ba ngay dellu si na ngay yeexal yoon wi ndax suñ borom defal na ko daraja ko koo janool ci yoon wi suñ borom dana ko jéggal xam nga ku ñëwagul nag tàmbalee fari bàkkaar te bi mu ñëwet ñi muy digal ñëpp istiqaama la leen digal te fekk na sëñ bi def ko ci mooy xam nga istiqaamam ku ko am malaam daal lay teggi gannaaw nag bëggala na ñëpp mu ci loolu moo taxoon mu war a mu doxaloon loolu yi yaa jaxasoo nag sëñ biloo loo jaxasoo ak Baay Faal yëpp nag yorin melaw sëñ Touba sëñ Touba moom murit yëpp loo yilif murit yëpp la jaxasoo rek jub ak baax ak dëggu daal ku ko def ku ne xaritu sëñ Abdou Khadir ku ne ci leneen ku ne nag seequ leen dara waaw gis nañu ne sëriñ Abdou Khadir Mbacke moom ku fonkoon li nga xam ne mooy waxtu juróom la daawut daawut rate ak julli maanaam du ci taalibe yi mën a jàngat ci bis bi xam nga waxtu yu juróom dama leen fii ne da nga gis jullikat boo xam ne day daw wuti jumaa ja te ci soxla su boppam la nekkan ba li ko yàlla sant ba mu ciy jëm day dem ci boppam ba sur sars nga xam ne day daw eggali te am na ñooñ lañ leen rawee ca jumaa ja xamuñu nu ca jàkk ja xamuñu nuñ koy dabe mënuñoo defaraat la ca yàqu xam laak baax da xamewuñ ko te moom nag day fuglu waxtu waxtu ne moom waxtu wee ñëw fekk ko ci jàkk ja waaye du nekk ja du nekk waxtu du nekk du dab du fekk jàkk waxtu woo ci jàkka ja waxtu waa koy fekk ci jàkka ja li ñu jublu ci laaj bi mooy dañu gis na salaata kan àla moom kitaaban ma xootan lañ wax di gannaaw dañ ko wutal waxtu nga xam heure bi te bu la joxoon rendez-vous ca palais dong a nangu mu tardé son borom nag jox la waxtu nga nangu mu tardé te daw rendi jeeg daw julli julli ci dañ koy tere li ñu jublu ci laaj bi mooy dañu gis ne màggal yi daanaka folklore bi moo ëpp léegi diine ci hmm? magal dañu gis ne legui folklore bi mooy ëpp diine ci manam fatali ko giñu fatali fàttali ko waaju baax dañ koy dañ koy faté manam topum bu mbaay meeg ba déet loolu mom du magal donc wala ki nak sara na sa jenn ju yalla teg lu mu gërëm amut lu bax da nga a new lu bon rek fi ne dëkk bo dem mbooy ya pu tool ndax jiwu dañ koy joxe te jiwu ñax kenn du ko joxe bu mak taw an ànd ñu ngi lay gërëm bax di la sant li lañ سبحان من بدل غير مسلم أبرينا كون سيد الورى مثل الورى الودى والنورى سلام رب العز وسلام على الذي لا نبي القلاب سلام رب العز وسلام على الذي لا نبي القلاب للمتين من كفاني من وسد يسر لله بخدمة المتين كل أسير ما دوكم فيكون وعاد الجميل بالبسار في خدمة المحتال سلسار صلاة للأس العزيز والسلام على النبي المنتقى الماء زمت لربي أمار ماي سنين بعد ثوابها مهلني قبلني ربي ما تقدم وما تأخر بما يقدم تاب علي توبة سنة ربي وياه غزلت فقدت على النبي معجزا وصاد لي ما خادني بعد زادني الباب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi ñu bàyyi xel ci al khadim ya assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ginnaaw bi nu sante sunu borom bi tabaaraku taala julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam sante Cheikh Ahmadou Bamba Khadim rasul ñi ngi fi ci kër Serigne Cheikh Mbacke mom soxna May Munatu Mbacke Kabir fekk fi Serigne Modou Mbacke bokk ci njabotu a Cheikh ibrahim Mbacke borom darul Moxti ñukoy ziaru bu Mbacke di ñaanal fon bu guddul wa nak yeeram ñu fekk ko nak ci bisu bi nga xamne dañuy fatale ko Serigne abdul Khadir Mbacke muy ñenti fan ci wéru octobre 2016 Serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullah ñu fekk la fii ci kër Serigne Cheikh Mbacke mu soxna Maymunatu Mbacke nga siyaar si woon euh, ñu bëggoon rek ay kàddu yi tënk yoo xam da nga ko dénk taalibe yi nga xam ne ñu ngi seetaan alxadimiya ci nu ñu nu ñu mën a topp waaju baax. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wahda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya ba'da assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ngi nuyu sunu bokk yi fi ci bërëb bi yi ko sëriñ bi may ñu ànd ak sëriñ Mourtala Lo moom sëriñ Lamine Lo ñu ñëw fi doon siyaare sëriñ Mor ci bisub sëñ Cheikh may bi mu dëppoo ak ba tey bisub sëriñ Abdou Khadir fekk nu <coughs> jóge jë kër sëriñ Abdou Khadir siyaare sëriñ Sidi ak bokk yi fa nekk yëpp di sant yàlla bu baax ci dimbali gi mu dimbali ñu fekk bis bi te di ko ànd ak bokk yi ci anam goo xam ne dëppoo na ak ni ko borom bis bi bëggee muy lépp dellu ci diine ak sunna sëñ Abdou Khadir nag jëmm ju tëdd di jëmm ju màgg joo xam ne nii ak teddam ak ku màggaayam dafa teel a feeñ dafa teel feeñ ci moom niñ koy nettalee nga xam ne ba mu gën ji jamono ba mu gënee àddina candaam la ci sëriñ Touba waxoon wax ko borom daaru ci ba mu koy tuddi ne ko na yeexal sa jéego fi nga jóge ba keroog ngay àgg fa moom képp ku la fa gis sa yaram araama araama sawara xam nga loolu kon day wane màggaayu moom gan googu di Sëriñ Abdou Khadr ak màggaayam dafa teel a feeñ ci bi mu feeñee ci àddina sëriñ bi wax ko daaru mu dem tudd ko tudd ko Abdul Qadir kon noonu ak màggaayam teel a feeñ noonu la noonu la noonu la màggee ak màggaayam it maanaam noonu la wéyee ci màggaayam googu ba ni génn jamono am njàngam alxuraan mu def ko fa mu ko war a defe njàngam xam-xamam mu def ko fa mu ko war a defe ak uh, sooboom ci wàllu yoonu yàlla te mooy yoon wi nga xamee ne nii yonent bi la andi woon yàlla digal <coughs> yàlla digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñooñu ulaayika lazina hadallahu fa bi huda fa bi hudeehu muqtade nga xam ne ñooy ñi fi jiitu woon di nit ñu baax ñooñu di ay yonente ñooy ñi nga xam ne wan naa leen yoon moo bëgg te mooy yoonu jub yoonu siraatal mustaqim kon na nga roy ci seen njub googu saxaaba yi ci loolu la leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaroon loolu la leen saxaaba yi yar continué ba ni ñëwee ci ñu baax ñëpp daal jaare ko ci aljunayd yi mu nekk euh, yoon woo xamee ne nii Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mooy sunu bunt ci yàlla bi mu ñëwee yoon yoon woowu it la tànn mu yoonu tasawuf di fexe ba jikko yi ñu sellal ko jëf yi ñu sellal ko te def ko te yàlla rek tax mooy ihsaan duñ la téye lu yàgg ndax dañ la fekk nga ne ci yoon waaye dañoo bëggoon nga dikkal ñu ndax yaa ngi ba daarul moxti nga bokk njabootu sëñ Ibrahima Mbacké njabootu sëñ Abdoul Khadir ak njabootu borom daarul moxti bëggoon nañ nga tënk ci ak dox ak mbokk waaw loolu jaxasoo gu wér daal am na ci waaw ndax yaakaar naa ne ki nga xam ne taw sëñ Abdoul Khadir di sëriñ Modou moom ci waa daaru la ndax soxna Bousso Mbacké moo jur moo jur way juróom soxna Bousso ak sëñ Abdou Rahman ñoo bokk boroom daaru kon sëñ Modou mi taawu sëñ Abdou Khadir maam Thierno Birahim moo jur way juróom maanaam moo jur maamam kon loolu yaakaar naa ne ak jaxasoo ci wàllu deret mënu ko euh, weesu sëriñ euh, As di sëriñ Fallou moom it way juróom doomi sëñ Abdou Khoudous la kon loolu ba tey jaxasoo googu nga xam ne mooy jaxasoog deret gi da ciy feeñ ak yeneen yoo xam ne nii yuñ mën a wax la ak yuñ mënut a leeral ndax man mii di wax ngeen yor naa lu bokk ci seen bu Khadir kon daal jaxasoo gi ci diggante borom daaru ak euh, seen bu Khadir jaxasoo gu yàgg la comme ni ma ko waxee léegi rek ma nga tàmbalee ca ba mu gën a àddina sëriñ bi ñu bare gi fi waaye borom daaru la sëriñ bi tànn ne ko demal nga tudd ko kon jaxasoo ga foofu la tàmbalee di continuer di nag mu rafet ba euh, jamono ji ñu tollu gis nga daw jek màggalu seigne bu xaadir gi Cheikh abou Fatih lañ ko tudde woon nga gis taxaway bi nga xam ne waa daaru gépp taxaw nañ ko ñu and no ñew seigne ahmad ak waxtaanam ci def kon loolu lépp day wané jaxaso gi dal amna dal wax deug yalla te jaxaso ku rafet la kon ñi ngi ñaan yalla saxal ko te dëgëral ko sëñ bu xaadir daal jëmm la jo xam ni dal kep ko xam ni yaangi eh, tan yoonu siratal mustaqim yaangi tan yoonu yoon wu gën boo boo ko Ah, da nga bay boo nga xam ne yaa ngi ca yoonu siraatal mustaqim bay boo nga xam ne yaa ngi ca yoonu gën ndax moom ci yoon woowu la nekkoon kon ñi ngi ñaar ci yàlla yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko suñu borom yokk ko leer suñu borom defal ko ay ay ay ci ci ci ci ñim fi bàyyi gannaaw mi njabootam tàmbale ko ci sëriñ Cheikh ci sëriñ Sidi nga xam ne moom moo ci suñu buntu nun ci kër sëriñ bu suñu borom defal leen tawfeex ñoom ñëpp yokk seen i may yokk seen i wér defal leen jàmm gis nañu ne da ngay topp alxadimiya lu moom moom site la boo xam ne nii wax naa ko sëñ Moustapha mi keroog mu ñëwee daaru ci màggal ga dafa mel ne sëriñ bi yàlla ni mu ko def nga xam ne da ko def mu ne fang fang googu mu ko def nga xam ne wala yee jaada bi duhuurin wa day day day day feeñ ba noppi doo am loo ko mën a gàkkale. ki yàlla defal tawféex nag mooy koo xam ne feeñ googu dafay dafay da ciy maanaam da ciy nekk di feeñal mbirum sëriñ bi ci anam gam gëne alxadimiya bii nag daf bokk ci ñooñu noonu laa ko analyser maanaam day wane sëriñ bi ci anam gam gëne ndax bu fekkee yow da ngay def ay da ngay topp borom xam-xam yi di topp ñu nga xam ne am nañ pëste wala am nañ itte ci lu jëmmal mbirum sëriñ bi nga di leen laaj di dugg ñoom ci ay waxtaan yoo xam ne day day day delluwaat sëriñ bi ba noppi di ko tasaare ci àdduna bi day mel ne da ngeen daal di mën dugg foofu mu dellu ci baytu sëñ boobu lastu ajulu liltimaasil maarifa nakiratan kuntu wa sirtu ma'rifa waaw du ma du ma du ma du ma du ma jugu ci di wëndeelu ngir sàkku maarifa maarifa mooy xam yàlla comme noonu nga xam noonu la ko noonu la ko waxee woon ci béedi béedi ko jiitu walam azal mun munzu aqaltu taaliba maarifatan billahi waaye gis nga lam ca teg rek moom laay misaale noonu nakiratan kuntu wa sirtu ma'rifa bu njëkk nakira la nakira nakira mooy koo xam ne boo ko waxee ñëpp mën nañ caa dugg mooy bu njëkk xaj na amoon nañ ak umpale ci sëriñ bi daa nañ ko gam-gam la geneen bu sëriñ Tuubaa yu mel noonu waaye yaa ngi ne mujj na nag nekk maxrifa muy fuñ ne Ahmadou Bamba kenn du sikk sàkk kan mooy moom mu dugg ci wala wala yee jaada bi zuhurun wa tuhur su ko defee nag léegi média yi nga xamné ne dañuy yëngatu di fagnal mbirum sëriñ bi ci anam nga xamné moy anam gëm gëné ba tay dañuy dugg fofu kon al khirimi fofu rek la koy dugg baax na jërëjëf sëriñ Modou mbacké mo sëriñ mustapha mom soxna has satu jaxaté ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal fan du gudd lool wa and ak gërëm ñu fekk la fi ci kër euh, sëriñ Cheikh mbacké mu soxna may mënatu Kabir mo sëriñ Mor soxna mbacké kon ñi ngi sant Mbacke mbacké euh, ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal moom sëñ Lamine Lo moom itam moom itam magam yaakaar naa sëriñ Xadim Lo moo doon def conférence bi keroog ci sët yi ñu koy sant ba di ko gërëm ku xam sëñ Moustapha Lo xam euh, ku xam sëñ Mourtala rek xam nga sëñ Moustapha Lo ñoom yaakaar naa sëñ Daam Abdourahmane Lo mooy seen maam ñoom itam ci xam-xam sëñ Daam Abdourahmane Lo dëkk fay kon sëriñ bi ñu ngi leen di ñaanal seen borom bàyyi leen sunu kanam ngeen yàgg a jiran jabal ci barke sëriñ Touba Cheikh إلى النبي وجاب ما قد أغلقان ما جهنم وأن الخلق قلت إلى المختار ما قد فتى باب الإله وإلينا الفتوى فرأت غير الخلق بالقرآن أجاب ربنا بداية المستمع بيني وبين كل ما ومسات هديد من جادني بكوني عبدا له خديم خير الكون واجل الخلاف بالقلام وخادني خير التلاوة حديث خير الخلق لي أنيس بعد الكتاب من هو الامين في القرآن سرا وجبا أن لا يزال أبدا متجبا هل الكتاب yar leen. yéen nag sàmm leen ca ya aar leen. ba nii ñu jiitoo njaboot gi. ba nii ngeen jiitale njaboot gi. nii ñuy mottalee seen liggéeyu maam. ak nii ngeen di mottalee seen liggéeyu maam Cheikh Amadou Bamba. yàlla def ko mu doon lu rafet lu law lu jëriñ. yàlla def ko rafet na ba noppi waaye yàlla na law yàlla na yàgg yàlla na gën a yaatu. en tout cas taxawaay beeg liggéey bi daal. en tout cas taxawaay bii nga taxaw ak liggéey bu rafet bii ngay liggéey daal. amal na njëriñ yoon wi. amal na njëriñ yoonu Mouridiya. amal na njëriñ réew mi. am na am na njëriñ réewum Sénégal. amal na njëriñ umma umma islamique. amal na njëriñ ci umma islamique bi yëpp à travers le monde. yàlla na ko yàlla saxal yàlla na yàlla saxal la ca sàmm la Mbàkke. ñu nuyu nag di ko di teg ci loxoom nuyu. nee na ñuy jël nag sunu nuyoo bu sell di ko teg ci sa loxo yu sell yi. suñu ziar ak suñu ziar. mu jox jottali ko suñu wayjur. nga jottali la ko suñu wayjur. suñu kilifa. suñu kilifa. Cheikh Sidi Mokhtar. Serigne Cheikh Sidi Mouhamadou Mokhtar Mbacke. ni ñu ngi koy ñaanal. ñu koy ñaanal yàlla. di ziar ci bis bi te di ko ziar ci bis bi. yàlla yokk ko yàlla na yokk. may ko wér ak tal. yàlla may ko wér ak tal bàyyi suñu kanam ak. may bàyyi suñu kanam a kanam jërëjëf mbooloo mi ngeen baal ñoo de Dakar sëriñ bi nee na mi ngi o xalifa Ababacar Sall honorable maire de la grande ville de Dakar ak mboolem délégation bi mu ànd ak ensemble de la délégation bi mu àndal sëriñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax a baax. gërëm. sëriñ bi nee na mi ngi lay gërëm. ndax ba yàlla dogalee suñu xamante. ndax nee na bi yàlla dogalee suñu xamante maag yow ba tey. mu jaar ci loxoy ku tedd kii toog di Babacar Touré. nee na mu seeral lu bëree bare bëri ci lu baax seen diggante. ci ay jukko yu sell yu ma waxoon ci yow. ba nga xamante ni indi nga firnde ji ba nga xamante ba fii nee na ba ngeen xamante ba fii mu toll tey. loolu rek laa xam ci moom. na lu rafet loolu rek la xam ci moom. Euh, tey ak jàppam ci man itam. ca ak jàppam ci man. moom amutub ab. nee nga seere ne jàpp gi ma jàpp amutub ab. ak cofeelam ci man itam. ak cofeelam ci man itam. amutub ab. na nga seere ne amul ab. tey jii rek firnde la nee na bisu tey bii nag firnde la ci. te saa su màggal gi accès. te saa su màggal sëñ Abdou Khadre accès. dana la ko fekk ci xat-xat. dana ko fekk ci ay xat-xat. waaye dana bàyyi lépp ñëw. waaye lépp lu mu jàppoon da koy bàyyi ànd ak yéen ñëw. loolu nag ak yëg rek la. nee na loolu nag ak yëg rek la. te xam naa ni yëg yi cofeel la ko lal. te xam naa ni yëg googu cofeel moo ko lal. ba ci màggal Touba gi weesu daaw. ba ci màggal Touba gi weesu daaw. ànd naag Mbaye Touré mii. ànd nga ak Mbaye Touré mii. ñëw ba ci man. ñëw ba ci sama jëmm ji ne ma lépp loo soxla rek. ni ma lépp loo soxla rek. na nga ko ko wax mu def ko. na nga ko wax Mbaye Touré ñu def ko na nga ko bëggee. loolu nag mu ne su ko weesu. nee na loolu nag su ko weesu ci ànd. waaw te li ngay jëf lépp itam. te jëf lépp itam. bëggoo ko ko wax. bëgguloo sax ku ko wax. bëggoo ku koy nettali it. ëppoon nay nettali ma ne bëggoo ku koy nettali. bëgguloo it ku koy nettali. waaye sunu borom mi nga xam ne. waaye sunu borom tabaaraka wa taala mi nga xam ne. lu waay def ci lu baax rek. lu waay def ci lu baax. mi ngi koy seere. mi ngi koy seede. ndax wutewul dara. ndax wutewul dara. yàlla fay la yàlla na la yàlla fay ngeen gi fay. ci barkeb Serigne Touba sunu yaakaar teg ak boo léegi. sant nañ leen bu baax a baax. jërë ngeen jëf. dégg nañ ci dikk bi itam. dégg nañu loolu ci dikk bi ngeen dikk. tey jërëjëfati. tàllal leen loxo yi nag Serigne bi ñaan. kon bay. mbàkk yàlla nga fi yàgg yàlla na ñuy wér. yàlla yàlla ku del saw fan ca dolli la wér ba mu doy. sagu bi yoon wi nga. sagum génération bi nga sagum Serigne Bamba khadim rasoul nga waye sagum serigne mokhtar mbake mi waxon ni yaay diou làmmiñam yaay beutam yaay bakanam yaay noppam yaay di tànkam yaay ay loxom mbake yàlla yak na yàgg ca ànd ak wér تثنير من قبل مني البرداء على الذي به كمال الغدا تعب فؤادي بتوجهي جزاء بيمين بما قدم رجزا توجهني من الجميل تعلية الباقي